jërë ngeen jëf mbokk wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen nuyu bu baax baax di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñoo ngi fii benn baraak seet si ki nga xamante ni mooy Armé balaa tout Armé la moo tax ñu gëj laa gis. onze billah bisimilah inna wali yàlla Ouzin maa ngi lay nuyu di la ziyaare di profito di nuyu suma fans yëpp suma am di jaamu yi sumay kilifa ñëpp di baalu àq ñëpp ci weeru tedd bi ñu nekk waaw. armée mu ngi nii rek ci ruqam <laughs> waaw gëj nañ maa gis mais tamit waaw ñu ngi ci li ñuy war daal way mais mbër naka lay wooree euh, kon ndax ku ne xam ne ni mbër moo lekk ak yenn yu neex yi daal da koo bëgg koo ki jot ngeen bañ a lekk ndax man mbëy ci bay koo ci woo une deux heures ba trois heures da ko jot cinq heures la mbëy di yeewu waaw peut-être ci ay mbërëm waaye ñun wax dëgg yàlla dinañ xaw a naajee yow tuuti ndax presque bu ñu xëddee la ñu soog a tëdd waaw guddi gi yëpp dañuy nekk suñuy entrement nekk suñuy entrement bu ñu xëddee ba pare soo a tëdd waaye deux heures moom du ñu fekk ci kaw lal bi. waaw deux heures moom munu ñëw fekk ci kaw lal bi. di ngeen di balaa deux heures dinañ yeew. naka ngeen di dundee koor gi koor gi métteegum na. waaw koor gi moom sant yàlla rek ndax ñoom tàmm nañu xiif quoi. vraiment wax dëgg yàlla xiif moom luñu comme buñ bu dul woor sax ñun am nañ habitude di xiif. comme gars yi nga xam ne chaque jour dañuy lekk lekk lekk loolu yooyu moom nekkuñu si. sànq de jëli naa benn mbër waaye nee na ma moom de bu xasee jóge entraînement ñëw deux heures day lekk ba xëddu jot. ah waaw loolu mën naa nekk mais man yàlla mi ma tiim xam na ni suñu waa kër xam na li may wax bu ma ndogoo des fois ndogu ndoguwaat laay def du ma reer du ma xëdd. billaahi. ah lu waral lool. waaw de ci ay nitam la rek man moom lekk lekk bu bëri moom du sama Mm-hmm. ok léegi gannaaw loolu nag moom euh, gis nañ yaa ngi doon dëgmal benn combat boo xamante ni combat bu neex la sa diggante ak fëgg la lan moo dugal ci fëgg la. waaw ñu ngi ci de mais ba léegi nag léttuñu ñu waruñu firiñu waaw prince na wax lu leer quoi ndax ay doomu jàmbur lañ te tamit suñu def famille lañ kenn yoruñu ñoo yor suñu bopp buñ toogee presque un an et quelques yu nga xam ni Covid bi lañu wax ñu bokkoon ci ñi nga xam ne amoon nañ avance depuis daaw jéeg kon yaakaar naa ne bu làmb ji ne buñ nee tag rek war nañoo wax lu leer mais ba léegi ñuy wax ni waxaguñ lu leer maa ngi koy déglu nag mais déglu wi xam naa ne mënatula yàgg ndax war naa mën a xam fu mu féete carrément man. bi bi bi Covid bi jeex rek léegi yow ak moom déggoo déggante ngeen. déggante nañ fan yi paase dafa jékki-jékki benn jour rek ne ma waxoon naa Pape Diagne danga war a ñëw damay def suma lancement de xawma journée ma ne ko man nan laay ñëwee jékki-jékki noonu boobu ba léegi nag dégguma dégguma ko waxuma dara man dañ may wax lu leer ñu mën ko suñ ko mënul ñu wax ma li mën a nekk bu ma mënul tëgg man ñàkkuma ku ma mën a tëgg mais bëgg maa téye ma jëmaat beneen déwén man làmbu laa yaakaar sama temps yëpp dama ko rey ndax làmbu lu bëri raw na ma suñ ma bëggee téye ku nga xam ne yow kenn yoru la yaa yor sa bopp bëgg ay deux ans trois ans yoo xam doo bëre ban ban chance la ma kon ma bàyyi làmb ji dem xool leneen. mais jotoon nga jot avance bi nga xamante ni moo war sa diggante yow ak moom. non joxuma avance yëkkati na benn somme wane ni euh, bëgg na combat bi mais du avance mu avance CNG lay jaar wala mu jox la njëgu avance mais li mu ma jox taxul ñu naan xaalis. mais est-ce que boobu bi ngeen déggantee. tegal nga ko proposition que na avance bi mat ñu doo ko euh, mottali suñu contrat yooyu voilà. waa xam nga loolu tamit mu ngi mu ngi basé wu ci moom ak menager bi mais man li ma am mooy man lu ci ëpp sax man combat dinañ ko waxaale ba sotti man du ma wax ndax noonu laa habitué woo mais tey su mettee tamit ñëpp day xam ni métti na fi mu toll ma toog nii jëmaat ban ba kañ. mais est waxtaan que waxtaan waxtaan nga ceeg ki nga xamante ni mooy Pape Diagne Seras wax naa waxtaan naa ceeg moom woo naa ko téléphone woo na ma mais Prince bu mënee moom day wax lu leer moo gën su bu munul muni munuma ma xool leneen. kon fi mu toll nii laa su ma juumul amatuloo lenn loo xamante ni moom nga mën a wax ki nga xamante ni mooy fëgg la. non awma lu ma koy wax ndax suñ combat taxawul daa d'accordoon ma d'accord rek mais taxawul taxaw en cent pour cent bu tax muy wax. parce que ñu jox la benn xaalis rek nga téye depuis bëgg a dugg ñaari at yu nga xam ne yow féetewoo fenn loolu taxul ñu naan combat combat dañ koy régulariser août date bu wóor mais promoteur boo xam ne naa ko def mois de juillet dinaa ko def mois de juillet mais loolu ba kat man tollu ma foofu ñoom ñu ngi ci yeneen di liggéey man entraînement mooy sama métier kon léegi man maa ci man maay gën a perte lu ma gën a toog ci man lay gën a metti Euh, bu ñu jógee ci loolu. Euh, koor gi ñëw na mbër yi pause nañu mais boobaak léegi saison bi dafa gàtt mais gis nañ mbër yi ñoo ngi ci ñaari combat ñetti combat ku ci mel ni Balla Gaye Boy Niang Balla Gaye Bombardier Boy Niang Balla Gaye Boy Niang Tapha loolu. waaw loolu seen sens la rek xam nga tey tamit nit ku nekk ak wërsëgam ak li yàlla di doxalee say mbir ñooñu seen sens la pour ñu bëree ñaari komba wala ñu am ñaari komba am na ñoo xam ne ñu ngi toog cinq ans mënuñoo bëre. am yoo xam kenn dàqu leen a bëre ci làmb ji mais ñoo gis ku leen tëgg waaw affaire bi sens da cee am quoi dañ leen di ñaanal ku ci nekk li ci sa sens rek yal na yàlla na doon li nga xam ne dalaa jik mhm. noo gisee combat Modou Lo Ama Baldé parce que combat bi taxaw na seen premier gisante ñu war a jàkkaarloo def benn genre scientifique mais coow li am ba combat mujjul am naka nga gisee loolu. combat boobu dafa war a yëkkatiwaat làmb ku yaakaar ne combat bi day yomb da ngay sa bopp. xam nga ñaar ñu ñaar ñu xiifante la waaw combat bu nara neex la joxe ci faveur moom dina jafe lool ndax Modou Lo ndaanaan la Ama ndaanaan la mais ku ci nekk bu bàyyiwul maninam daal dina gis combat bu doy waar dina met dina am bari dina am xeex Ama attaquant la Modou Lo défensif la waaw. mais est-ce que combat boobu Ama attaqué dina ko arranger. waaw ndox du bàyyi yoonam nit du bàyyi maninam man li ma gëm mooy li ma mën chaque jour bu ma ñëwee dama koy def lu la yàlla may nga xam loolu la la may bu doon may ama wala kii li ma daan def laay def rek. Mhm. Euh, Modou loo taxaw xaa Ama Baldé avantage am na Modou Lo loolu mooy bëreem nag bu dëgg rek neexee <laughs> daa mel dog jot na de. <laughs> mbokk yi gis ngeen lii mooy Sénégal dañoo namoon lii quoi làmb jot koo jot nit ñu nekk ci mbedd mi di joxe kafe di joxe dog gis ngeen dog jot na xanaa ñu lekk tàndama ba te yeggali bokk na ci est-ce que est-ce loolu engagement Modou Lo mu taxaw ak arbitre sifflé Ama Baldé donga ne wut Modou Lo Modou Lo kenn mësu koo gis arbitre sifflé mu fekk la mën mooy dina la cokkaas xeex ak yow di ci defendre am ci lay bëree moom contre kele lay bëree. Mhm. waaw loolu bërëm la moom. Ama Baldé abi soufflé Modou taxaw xaar ko naka nga naa gis mutloo Lo ba jëflante ak moom xeex dina ci am wala bëre. Ama Baldé Modou Lo est xeex dina ci am. si làmb jooj mënul ñàkk xeex. mënul cee ñàkk mënul force dañuy xeex. xeex nga gis lu doy waar loxo mën naa jub gémmiñ de xam naa ñoom ñaar ñëpp borom fit lañ te ay xeexkat lañ ama ku ko xam-xam ne du ragal ku gis ni mu bëreeg ah, Malick Niang mm-hmm. nga xam ni te Malick Niang làmb ji mënoo compter ñu ko fi dàq xeex mm-hmm. mu taxaw résister ko xeex ak moom ba kaawa ko kon kum ne dina xeex ak moom na ko ñëpp gëm mais su jógee ci loolu yaa ngi naan sa combat am maanaam daanaka taxawagul mais su dul fëgg la est-ce que am na ñeneen ñoo xamante ni ñoo ngi sa xel wala da nga bëgg li jënd fëgg la ba noppi doo ko dem xool leen. non fëgg la taxul man fëgg la taxul may bëre dama fi nekk pour làmb su ma demee nag ba xam ni làmb ji man nekkatuma ci damay bàyyi dem xool leneen lu ma def mais fëgg la rek taxul may bëre samay adversaire ñu ngi fi du jeex. ñi ma ci non ñi ma tollal génération yëpp man 2011 laa dugg ci làmb def 12 combats am ci 10 victoires 2 défaites laa am. may ñaan yàlla defet yem foofu samay victoire yokk kon man ñëwuma ci làmb ji ak cuune waa mm-hmm. nañ waxante dëgg gis nga tey lépp loo gis day am diggante boo xam ne day xaw a naqari luy neex di dem amul yàlla bindeewul noonu àdduna dëgg la nag année yi neexul comme que si defet laa jóge mais man dama ñaan yàlla rattrapé gu waat nekkaat fu raw fi ma nekkoon samay morom duñ jeex ci làmb ji Euh, léegi comme danga nga ne Prince euh, moo ngi dox sa combat wala boog joxeegul avance est-ce que bu nekkul Prince am nga yenn adversaire yoo xam te ne mën nga leen citer wala boog euh, fëgg la nga bëgg lijjante ba noppi doo ko dem nekk ci leneen. waaw mooy li ma la wax fëgg la bàyyiwuma ci làmb man ñi ma tollal génération yëpp bàyyiwuma ci kenn kenn kenn làmb mooy sama métier moom laay def bu dul fëgg la di keneen basé wu ma ci moom sax liggéeyuma pour moom kase wallaahi damay liggéey pour sama carrière. mais fi mu toll nii bu ne la woon combat bi bu bu bu Korité gi jeexee ñëw leen ngeen sëgg nooy def. mais xam nga loolu mooy mooy mooy empêché mbër mi ku nekk xam na ci yuñ jógee. Mhm. ak ni mettee xam nga tey nga bëgg a téye benn nit ki ba benn lu matul un mois wala dara nga bëgg cee kii mu préparer combat xoolal après affaire boobu loolu mooy demal nga daanu ji man liggéeyuma noonu su may tëgg damay wax lu leer ma nekk ci condition yu baax mu ne entrainement ak xel mu dal mais kii nii bàyyi noonu ba jekki-jekki rek ñun ma combat lool suñ ma ko defee tamit du ma bëri xalaatuma ko. ku la ko defee doo bëri maanaam daal danga nga bëgg a waaj ba xam na yow da ngay dëtmal ne fii ak un mois wala fii ak deux mois damaa war a sëgg nga waajal sa bopp. ma mën a préparer bu baax am avance préparer comme nit ñi ni ñuy préparer combat mais duñ ma bëlëf bëlëfee jekki-jekki ne ma euh, jour sangam da ngay bëre ma non loolu man saraxew ma sama bopp de dañ may wax lu leer. su dee day tëgg combat bi day wax lu leer damay tëgg combat bi su dee tëggul mu xam ne tëggul ma dem seeti leneen ñàkkuma ku ma tëgg douze combat laa bëre musumaa tëgg waaw. gis ngeen douze combat laa bëre ñàkkuma ku ma tëgg mais koor gi dañuy gis buñ nee dàq koor bi nga nekkee xale lan nga si mës a def mës ngaa woor ba ci digg bi nga dog sa koor wala nga làqatu lekk ñoo toog ne dama woor mës na laa dal. waaw loolu moom yaakaar naa ku jaar ci xale moom jaar jaar nga ci loolu mais nag man moom li nekkoon sama problème du ay lekk man su may jàpp moom noo def ma naan. <laughs> ci biir jàpp bi galaxndiku bi. biir jàpp bi noo def ma tooyal sama pour ba pare nag damay continuer après damay pare naan waa man su ma yëgoon mën naa bañ a bàyyi mais tellement que ni nga doon wooree dangay yaakaar ni sa tiflit sax warul jàll ndax boobu xamoo ni mhm. tiflit yooyu yàqul koor sa put bi day wow ba yow. doo comprendre mooy waral ngay jàpp yenn saa yi xaw a bàyyi tuuti mu jàll. <laughs> mais en tant qu'Ameth lan nga gën a bëgg ci lekk. man man nag vraiment bañuma dara soom bi daal xam naa ne ba ci <laughs> mis bi bañuma ci dara man nitu daara laa. am nga am nga am nga benn plat boo xam te moom nga gën a préféré. suppu kànja la. <laughs> kon tey daal ci dimanche bi buñ la buñ la boo ndogoon ba noppi ñu taaleel suppu kànja kon loolu benn affaire. non mën na koor moom habitué wu ma si di lekk ceeb dinaa woor ba woor du ma lekk ceeb. loolee. ay lekk nii rek ay lekk yu kii rek. mais waaw waaw mais euh, ceeb moom duma ko lekk si koor. noonu non. ci mbër yi mbër daal ay ndaanaan <laughs> mais soo amoon kàddu yu mujj lan nga ñuy wax ñu tàggatoo. kàddu yi mooy di ñaanal ñëpp jàmm. di ko ñaanal suñu bopp yàlla nañu yàlla defal jàmm ci barke Seydina Mohamed di ñaanal di leen ñaanal yéen tamit seen site bi waa wasaare comme ni ma koy waxee rek yàlla na nekk ci kaw ci kanam. di ñaanal suma yaay yàlla na suufu Touba oyof si kawam di ñaanal suma papa di ko ñaanal bépp jullit képp ku nga xam ni way làqu nga yàlla na la yàlla yërëm ci barke weer wu tedd bi hmm. di kontaan ci yow trop Ouzin. gis ngeen di di kontaan ci moom moom tamit di jaajëfal sama cameraman bi ndax xam naa dimanche bi tey bésu repos am la waaye gis nga maa ko yëg maa ko yee ànd ak moom dugg ak moom biir dëkk bi di leen jaajëfal bu baax a baax dañoo jox dig daje ci wasaare làmb jaa ngeen jëf.